salaamaaleykum mbokk téléspectateur yu Equivox TV ñu ngi leen di nuyu di leen dalal tey nag ci bés bi ñuy fàttaliku génn ak àdduna Cheikh Al Khalifa Serigne Babacar Sy xewoon ci 25 mars 1957 tey nag 25 mars 2021 moo waral ñu seet si kenn koo xamante ni njaboot la ci moom di sëtam di doomu soxna ñuy Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Amine moom la ñu seet si moo di tamit président bu cadre unitaire de l'islam ngir mën a waxtaanee ki nga xam ne moo di Cheikh Al Khalifa si dimension spirituelle am ak dimension intellectuelle bu Serigne Babacar si ñu bàyyi ko mu nuyu leen laata ñuy dugg ak moom ci waxtaan wi Serigne bi ñu ngi lay nuyu di la ziar. salaamaaleykum wa rahmatulah wa Equivox TV ñu ngi leen di nuyu di leen delloo ziar. di nuyu waa seen mbokki internet yi ak téléspectateurs yi leen di seetaan ci Sénégal ak ci biti. Ah, di ñaan yàlla barkeel jotaay bi ak fi ñu fiy waxtaanee barkeel match yu ñëpp mu nekk yiw ci njaboot yi nekk yiw ci Sénégal yëpp. amin yaa rabbi ah, si Malick li ñu lay bëgg a laaj moo di ah, lan lañ mën a jàpp ci dimension intellectuelle bu Serigne Babacar Sy. wax ci sëriñ kër si nag ci yomb na yombul ci par rapport ak sama statut ndax sànq da ni président cadre unité man na fii moom euh, dafa nekk koo xamante ni jàpp wuñ ko sax euh, maam ci wàllu deret waaye sëriñ lañ ko jàppe mu nekk nag maam bu njaboote ñëpp nag euh, wax ci moom dina yomb boo ko jëlee ci wàllu woowu waaye du yomb ci bu fekkee ni dafa nekk da ngay xool ni que ay suñu ay référence ci àdduna ku mel ni Serigne Abdou Aziz Al Amine nga xam dund nañoo ko moom ku mel ni Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy euh, ci ci ci ci modèle euh, bu fekkee da nga bëgg ñu waxtaanee kooku dina jafe trop trop ndax ñun ñi fi bàyyi daf ñoo yéem kon ñun dinañ jafe trop ñu xam moom naka la meloon moo tax foofu la waxam ci moom di jafe waaye ñu jéem niñ ci mën rek ah, di wax ni dimension intellectuel am damay wax ni mooy euh, Serigne Babacar c'est le syncrétisme wala moom mooy synthèse euh, de l'homme moderne religieux su ma nee synthèse de l'homme moderne religieux dafa nekk koo xamante ni jaar na ci daara daara baayam waaye aussi daara yu ko ay baayam boole lool euh, ba mu ca génnee yàlla def mu jonkonte ak monde moderne ci ay bindam sax daf ciy feeñ ndax dafa nekkoon a li may wax aw carrefour eh, njàngum daara ak mboolem xam-xam yi nekk ci daara balaa eh, ilmul balaa eh, bayaan aruut ak yi nga xamante ni waroon na ko xam ci daara yàlla def na mu mokkal ko gannaaw bi mu génnee ci ci daara jooju waaye yàlla def mu jonkonte ak monde moderne ndax boobu dafa fekk mu toll ak colonisation ah njàngum tubaab commencé law ci réew mi mu am euh, mu nekk rek ci capitalu Sénégal ndax sëñ xaaj sëñ Ndar la juddoo mm-hmm. mu nekk donc ci capital de la mm-hmm. ah di jonkonteeg ñi nga xamante ni dañoo jàng tubaab mm-hmm. ba moo tax sax dangay gis ci yenn bayti yi muy bind mu ci dugal ay tubaab baati tubaab mm-hmm. euh, waaye it yàlla def mu nekkoon aussi ci ndar koo xamante xam dëkku cosaan mm-hmm. donc mu nekk ci diggante ñetti xam-xam yooyu xam-xamu cosaanu mm-hmm. réew mi xam-xamu tubaab yi nga xamante ni moom la colonisation indi mais aussi xam bi nga xamante ne moom la doon ci ay baawam ak ci ay maamam muy xam-xamu diine donc moom dafa boole ñett yooyu yëpp te dafa feeñ ci dundam feeñ ci taxawaayam feeñ ci ay ay mbindam di nga gis tey ci mbindam yenn yi day am wolofal ay mbindam ci bayti mi bind léeg-léeg mu am ay baat tubaab yu mu ci dugal lépp nag ci arab boo xamante ne arab bu leer bu rafet boo xamante ne ñëpp xamoon wayam ni mu rafete woon mu nekk nag ci wàllu intellectualisme toujours mu nekk ku amoon ku fonkoon li mu yor amul benn complexe nag ci ci arab yi parce que loolu dafa jafe woon trop ci ci réew mi nga nekk intellectuel ba pare amoo complex ci tubaab yi mais aussi amoo complexe ci arab yi fonk li nga xamante ne moom la moom la amoon muy xam-xam bi nga xam mooy xam-xamu diine kese te loolu li koy wane ci ci ci taxawaayam mooy euh, lii nga xamante ne ay ay ay ay euh, nan laa ko mën a tuddee euh, digganteem bi mu amoon di ko jëflante ak nit ñi ba kuy dem màkk da nga ngi mun mu naan la parce que boobu nit ñi dañ daan def kuy dem màkk boobu booy dellu si yore ay kaala naara ki nangam nangam booy dem màkk mun la bu la ñaanalee ba pare ne la waaye boo demee bu fa roy dara kon xamoon na ni que amul complexe tubaab yi ah complexe naar yi ah, lii ci wàllu tubaab it ñu wax ni que Seydi Hadji Malick bi mu ko waree joxe tubaab bi bu mu liggéey ñoom ndax xam nañ ni c'était un comité d'administration liggéey na poste bu ndar loolu li ko mayoon mooy xam-xam bi mu amoon ci wàllu njàngum tubaab euh, biñ koy yóbbu ci muy dem sëriñ Babacar sëriñ Hadj Maay dafa ni Babacar de mën naa leen ko jox ndax jiitu naa leen ci moom kon amoon na cëslaay ba nga xamante ni ci wàllu xam-xam ba amul dara lu ko mën a fëkk yóbbu ko ci leneen muy acculturation bi ñuy wax léegi nii kon euh, sur wàllu foo mënee tënk rek ci wàllu intellectualisme moom dafa nekkoon à la croisée des chemins entre la culture occidentale la culture arabo-islamique ak la culture traditionnelle yëpp nag mu def ko ci benn syncrétisme bu am solo ba noonu la doxalee addunaam euh, ci wàllu àdduna mu boole ko euh, philosophie wolof bu bu am solo mën nañ ci dugg après ci ay ay ay wax yoo xamante ni wax na ko mu dëppoo ak jamono ba tey nga mu nekk ay leçons yoo xamante ni war nañ ko mën a Euh, di ko utiliser ci suñu dund ndax taxawaay la yoo xamante ni euh, taxawaay yu mucc ayib la ci wàllu diini mais aussi ci wàllu moral rek donc euh, su ma mënee def benn résumé daal ci wàllu intellectualisme bañ a xóot bañ a ci moom ndax ay ndax ñu sañuñu wax loo xamante ni du nekk loo xamante ni dañ koy dañ ci nàmpatal ndax am na loo xamante ni ci suñu wajur lañ koy déggee ci lu bari am na loo xamante ni ay bindam lañ koy lañ koy jàngate waaye euh, foofu daal lañ ci mën a yamandi ci wàllu intellectualisation ndax seen xam-xam seen seen taxawaay sori woon na lu weesu ñun liñ ci wax. dafa mel ni sax buñ lay dégg euh, daf ñuy fàttali lu wéy jër di waxoon mu di Serigne Abdoul Aziz Sy Al wax ni sëñ Babacar daal géej la goo xamante ni euh, amul bànqaas dafa def ndànk boo siy dugg booy suru sax doo ko yëg ndax fees gu mu fees macha allah ci wàllu woowu dimension spirituelle bu Serigne Babacar Sy. waaw moom dafa. lu ma ci mën a li ma ci mën a wax rek mooy d'abord ni mu ni mu ni mu euh, euh, at yi mu am biñ koy jox xilaafa gi wala boog at mu am bi muy bi ñu naan bi ñu naan ci doo doon na bàyyam wala boog doon na tariqa bi euh, mu am nag ay yéeme yuñ ci yuñ ci yuñ ci nettali parce que bugguma sax dugg ci wéru karama ndax moom Euh, am na loo xamante ni dañ ko koy waxal lu bari nag ci waaye du loo xamante daf ko won wane ci àdduna mais li gën a doon euh, ay ay ay euh, en tout cas dimension spirituelle boo xam mën nañ ko wax ci moom mooy d'abord bi way juróom génne àdduna Sëriñ Seydi Hadj Malick mu am de l'ordre de trente et quelques années trente quatre trente cinq ans ay mag ñoo xamante ni ay magu kàngam lañu koo xam ne ku nekk waroon maa mën a taxawee taxawaayu Seydi Hadj Malick boo jëlee ku mel ni Alhaji Rawaan Ngom ca Paal ku mel ni Baba Ndiong ca Podor ku mel ni eh, Cheikh Batou ku mel ni ay nijaayam ñoom eh, sëñ Mor Sodia Sy ñooñu ñëpp nekkoon fi eh, yàlla def ci taxawaayam mag ñëpp dem ba nangul ko kooku wanu leen peut-être xam-xam ndax ñooñu ay mag ñu nekkoon ak Maodo lañu ba xam xam-xam yu waroon lañu war a xam ci àdduna ak ci diine yëpp xam nañ ko euh, du woon dimension euh, alal wala économique ndax euh, loolu taxul a jóg tarixa bi waaye dimension spirituelle bu mu leen wan moo tax ñu ànd ak moom ah mën nañ ci nettali benn wala ñaar ci ay ci jaar jaar ndax ñu ngi nettali ne juróom-ñaari at laata Seydi Hajj Maalik di génn àdduna ci la ko wool mu ñëw mu ne ko dama bëgg nga sori ma tuuti mu ne ko ma dem ndar mu ne ko ndar eh, dafa sori lool mu ne ko ma dem Louga mu ne ko Louga maga nga fa suñu ba suñu maam eh, Hadj Malick moo fa nekkoon mu ne ko ma dem Dakar mu ne ko dakaar dafa lëndëm te sama eh, liggéey noppeegu fa mu ne ko ma dem tëngeej mu ne ko waaw kay mu dem tëngeej boole ko euh, muqaddam bu mag bu ñu wax sëñ Alioune Dia mu la fa nekk lool ñu wax ni ko foofu dugg na fa xalwa lu ëpp junni bés kooku xam nga euh, mi ngi matal ci wàllu spiritualité nekkinam ñuy wax ni ci jamono jooju ci lañ ko jox tariqa bi ci baatin ndax sëñ Alioune Dia boobu léegi naa bi mu ñëwee tëngéej ba mu nuyu ko ba pare daf ko ni ndokkale mu ne ko ndokkale ci lan mu ne ko ah mag ñi biir jox nañ la tariqa ba ca ca kaw wa pour wax ni euh, mag ñooñu ñëpp nangul ko dimension spirituelle boobu ba bi Maodo génnee àdduna ndax yi ko Maodo mujjee bàyyil mooy ne ko damay bëgg nga dem def mottali sama yéene ci zawiya ba ca ndar mu ànd ak Seydou Nourou dem mottali yéene jooju tabaxaat nadawiya bi parce que moom dañu wax ne ba mu koy def eh, yéeneem la amoon rek ki tabaxal eh, yàlla néeg waaye dooleem eggu fa woon ah mu dem yeesalaat zawiya ba ca ndar mu ne ko nag su ma bindee sama ñaari téere yi nga xamante ni su ma ko bindee ba pare nag daal leen bàyyi seen àdduna muy kifaatul kifaayatul raxabin ak eh, ifhaamun kir aljaani fa tabarakallah kon ci dimension spirituelle mën nañu wax ni juróom-ñaari at laata Maodo di génn àdduna am na lu mu ci commencé woon di incarné bi Maodo génnee àdduna aussi mag ñi am taxawaay ñëw jàppale ko ci liggéeyam am na sax ñuy wax ni am na yenn ci yenn ci mag ñi ñu ko bëggoon a défier ci wàllu woowu waaye dañoo mujj delluwaat xam ni kat kii am na loo xamante ni ah, mag ñu baax ñi am na lu ñu def ci moom. waaw tabaaraka la kon ci wàllu spiritualité. mën nañu wax ni yàlla. Euh, defaloon na ko bu muy jël tariixa bi mais aussi taxawaay bi mu amoon ci réew mi euh, durant li mu nekk euh, xalif yëpp ba cinquante sept bi mu nekkoon taxawaay bu mat sëkk nag ci diine ci ah li ñuy faral di wax sax ni bi mu fi nekkee xalif sax le titre de xalif moom rek moom lañ ko daan joxe ndax taxawaayam bu mu amoon ba ay moroomam nangul ko ah mu amoon nag relation yu am solo yit ak yeneen kilifa diine yi ah waaye eh, dimension am maanaam envergure bi mu amoon moo ko tax ba eh, fa tabarakallah mu mën a am rôle bu mu mën a jouer ci réew mi ba tey eh, ba mu fi jógee mu amaat troisième dimension nag ndax lu ci ëpp nit ñi li ñu wax sëñ Babacar dafa am loo xamante ni mag ñu bari amuñu ko ñu ne xale na ko kenn mbay wax way ko ne xale yee judd ci gannaaw mbay gisuñu mbay xamuñu mbay wax waaye koo ci waxal moom la gëm ah loolu yàlla moo ko defal muy troisième dimension spirituelle boo nga xam wane na ko eh, te cofeel bi xale yi am ci may doo doo xam li koy li koy wund eh, cofeel la boo xamante ni dafay dafa spontané ah, te loolu it lu ko defal mooy ndax ñun damay fàttali ñun bi ñu nekkee xale sax bu ñu daan xool photo bi ndax photo rek la am ci moom dañ daan taxaw di làqatu ko nekk dinaa xool man lay xool ci biir néeg bi <laughs> ndax ndax yéeme bi mu yéeme woon ci suñu bés yaay yéeme bi mu yéeme woon ci li ñu suñu way jur daan nettali ci moom ndax boo gisee sa way jur mu am yenn dimension yi ba pare mu jël nit koo xamante ni da ngay foog ni sax daf ko daf ko mujj idolâtre ndax fi mu koy teg ci àdduna dafay doy da ngay yaakaar kon kooku nan la waroon a mel ci ci jamono tabaarakallah kon mën naa euh, tënk rek ci ñetti période yooyu ma lay wax laata moo nekkee xalifa dimension spirituelle bi bi mu nekkee xalifa li mu taxawee woon ak bi mu fi jógee nga xamante ni ñun ñi ko fekkewul sax dañ ko def sëriñ wa tabarakallah di wax ni daal nit ku yéeme la woon ci wàllu euh, ci wàllu baatin nit ku yéeme la woon ci wàllu spiritualité boobu dafa mel ni tamit ci loolu mun nañ ci jàngat li nga wax léegi ni euh, maanaam bi mu fi jógee léegi 1957 ak léegi yàgg na trop waaye dafa mel ni tey la gën a nekkaat maanaam l'absent le plus présent ndax ba tey rek euh, xale yi ñu mujjee juddoo ba ci at wi rek ñoom ñu ngi bàyyi xel kii di Serigne Babacar Sy ak cofeel bi ñu am ci moom fi jamono toll ci wàllu euh, réew mi ban message lañ war a mën a jël si bindam loo xamante ni mun na gàggantiwaat réew mi ndax bind na lu bare bare bàyyi ko fi ci wàllu citoyenneté naka lañu war a taxawee ci wàllu euh, jëflante diggante jullit ak moroomam ak jullit ak ko di jullit ak loolu yëpp lan lañ mën a jàng si message yu Serigne Babacar Sy rawatina ndaw ñi. waaw moom dafa dafa dafa wax ci loolu ci ñaari wax yu mu wax rek ay ay yóbbal yim ñu jox mu ne diine tariqa daayira yoonu Tiwaawan ak métier dafa résumé l'homme moderne tey wala boog l'homme moderne religieux li nga xamante ni moom la war a taxaw am diine ju mat sëkk mu nekk mu mu mu tracé la yoon euh, nga am tariqa mooy am kilifa boo xamante ne moo lay wan sa yoon euh, nga am daayira maanaam am relation ak sociale ak ñi nga xamante ni ñoom ngoo seqal mm-hmm. euh, diine jeeg tarixa bi euh, sa métier nga am ci looy góor mu am sa dignité mais aussi sa yoonu tiwaan nga xamante ni day nekk benn euh, lieu de rassemblement boo xamante ni nit ñi dañ mën di fàttalikante juróom yooyu rek mooy tey lépp loo xamante ni nit mi ngi koy dox benn boo ci jël rek dina defar àdduna ah mu jël ko nag tënkal ñu ko ci ci ci ci euh, héritage bi nga xamante ni moom la jox ngir ñu mën mu nekk benn yóbbal pour le vingt et unième siècle wala pour tout le futur mu waxaat beneen beneen wax ci nit ni mu war a doxalee ci àddunaam mu tudd ko ci gor gor du tiit ba fenn gor du fëkk jëf gor du euh, ñàkk ba sàcc gor du gor euh, du jàpp bay ñeenti ñeenti yooyu dafa résumé aussi lii nga xam moom la ñu wax tey te ñëpp di ko di ko mooy ay bonne gouvernance ak ay éthique te nit tey ki nekk ci société beeg privé ka nekk ci atelier ba di liggéey ka nekk ci état di liggéey ku ci nekk war nga jël yooyu nga xamante ni mooy ay charte d'éthique et de déontologie ci mu nekk sa sa sa cëslaay ci sa dund mu nekk sa cëslaay ci sa ci sa taxawaay ci àdduna ah loolu it mu tàggat ci boppam eh, tàggat ci nit ndax moom daf doon wax ni fàttaliku ma fu ma tooñee sama borom kon matal na digganteem diineem ak tarixam kooku eh, eh, mu yar nag njabootam ci bañ a tooñ njar yabootam ci ndax maa ngi dégg ay wax yu mu wax benn taalibeem bu mës a ñëw fekk ko fii ci dakaar rue Thiers bi daal di ñëw ne ko ah man kat dama yëg ni yaa ngi fi rek ma daal di sàcc génn sama bureau ñëw daw si ngir ziar si la mu ne ko ah mbaa tàggu nga sa patron mu ne ko déedéet tàgguwuma ko de mu ne ko kon de Babacar mun la yenu loolu soo demee di xoolal diir bi nga fi def boo demee bu wàcc jotee nga defaat fa diir gu toll noonu ngir fay ko ngir fay ko sa sa patron. Euh, waa ngoon jotee mu war a patron bi fekk ko muy liggéey mu ne ko ah yow doo wàcc mu ne ko noonu patron ko ah yow wàcc ko noonu mun ma wàcc bañ ko wax lan la mu ne ko non di nga wàcc di nga wax lu tax doo wàcc parce que yow da nga daan heure wàcc da ngay ne ko ah am benn kilifa bu ma seete woon nettali ko mu ne ko kan mooy sa kilifa mu ne mooy sëñ Ba mu ne kañ dem ma xam kooku ndax kooku bëgg naa xam ku mel noonu pour dire que étique bi nga xamante ne moom la doon ñaax ci boppam moom la doon ñaax ci bokki taalibe yi kon damay wax ni que moom c'est le mooy synthèse su wax naa ko sànq mooy synthèse om moderne te philosophie ci dund philosophie am ci diine soo ko euh, soo ko adopté di nga mën a jaamu yàlla ci sa liggéey jaamu yàlla ci sa nekkin te dara du la mën a yàqal sa jaamu yàlla ndax loolu moo jafe ci jamono ji ñu nekk euh, suñu classe gi nga xamante ni ñu ngi ci business yi moom bés bu nekk <laughs> nga gis loo xam war nga laa mën a jéngaloo waaye bu fekkee da nga am philosophie bu mel noonu jël ko teg ko sa kanam ah yàlla mën na defal sutura ba li nga li nga nar a jàdd du du du bari ah di résumé rek xanaa ci waxtaan li nga xamante ni bari na ay anecdote yoo xamante ni dañ la koy jox ci taxawaayam yi mu amoon euh, ci fulaam nag surtout nag euh, ñu bañ ko yàpp ci dara muy tubaab bi muy ñi mu nekkaloon di ay moroomi Eh, nawleem ci diine waaye muy nekk rek ñi nga xamante ni ay ay citoyen te li koy wane rek mooy eh, mbooleem ñi nga xamante ne ñi ngi woon Ndar nekk ay comité d'administration ay nekk dans l'administration dañoo mujj wàññeeku nekk ay ay taalibe eh, ñoom bi ñu doon nekk Ndar dégg naa lañu leen daan dañ leen daan sànni xeer naan waaw yéen yi ngeen nekk di sañse rek nangam nangam waaye bu ci nekk da ci daan am tontom ba la nga la nga la nga namoon ci moom muy ñaawteef wala muy wax bu ñaaw boo ko doon wax ci gannaawam ah, euh, am na loo xamante ni ñu ci bari dellu si waat nañu seen gannaaw fa laa kon euh, su ma mënee résumé daal loolu laa mën a wax ci ci sëñ Babacar ah di wax ni ñun nag euh, ñoom seen dimension kenn mënul egg ci ñoom day nekk inspiration rek suuf benn suuful lay nekk suuf suuful d'inspiration boo xamante ni da nga ciy da nga jéem a tënku ngir euh, heure boobu naree jàdd rek yàlla jàpp dimbali la ci seen ci seen ci seen ci seen mbaax ñu delloo siwaat leen ah di wax ni daal loolu lañ ci mënoon wax ci taxawaayam ci wàllu àdduna mu nekk viatique pour ñun nga xamante ni ñi ngi ngi nekk si jamono bu lëndëm jamono boo xamante ni dafa laajaat ñu tëggaat jikko yi ñu tëggaat xol yi ñu tëggaat euh, nekkin ni ci ci àdduna ah, ñoom seen ay taxawaay seeni i mbind yi ñu fi bind bàyyi fi seen nekkin bi ñu fi nekkoon ak seen nawle diine yi ah, wane nañ euh, xuus nañu euh, ci ci ci géej gi ah, géeju goudron sol mbubb mu weex tàll te dara taxu ci kon nag dañ leen di ñaan yàlla taas ñu ci seen barke ci bés bi nga xamante ne mooy bésu fàttaliku. Mm-hmm. donte sax ah, ni ñuy wax ne que Seydi yi Malick buggul woon ñuy. Mm-hmm. ñuy célébrer li nga xamante ni mooy anniversaire ku dëddu àdduna. Mm-hmm. waaye du tee rek bu bés bu jotee ñu fàttaliku ko. fàttaliku surtout jikko yi fàttaliku nekkin ni ngir mu mën a tàggataat ci ñun. Eh, benn taxawaay bu am solo ci suñu wàllu di diine mais aussi suñu wàllu àdduna. ndax ñoom ñaar yëpp la boole woon. tabax Euh, diin àdduna bu dul màbb waaye tabax ëllëg goo xamante ni di nga fa fekk loo xamante doo rus ndax danaa wax naan yàlla nañu yàlla musal ci àjjanay àjjanay gàcce <laughs> àjjanay gàcce mooy àjjana boo xam bu ñu bu ñu rusul woon diw <laughs> <laughs> <laughs> kon nag yàlla taxawaay ci barke yonent bi sallallahu alayhi euh, yi mu nekkoon euh, interview spéciale bu ñu def ci Cheikh Al Khalifa Serigne Babacar Sy ki ñu ko doon defal moo di Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si Al Amin ñuy am yaakaar ni euh, jànkaat ngeen beneen facette si Serigne Babacar Sy di ñaan yàlla may ñu teew koy at yu bëree bëri di jaajëfal suñu kilifa gi ñu doon dalal ci kër gi Serigne bi ñu lay remercier bu baax a baax ñu ngi leen di remercier yéen tamit di ñaan yàlla dëgëral seen mm-hmm. yokk seen télé bi. amiin incha allah ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam. amiin yaa rabbi ok jërëjëf merci beaucoup.